njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex fi wala location mo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit ci na mu gëna gaawé tubar tubaar fakal mettre de en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko défé ñu ñëw sa biir kër dal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio ci ay photo yu euh, l'air nañ ak ay vidéo yu doy waar dal di koy posté si sunu page bi du social shopping immobilier bu de faits, Yen, 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 Action social shopping immobilier kër لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا صمدي لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا صمدي بدلنا الإسلام والكفر معا وبنذيعة لكل سمعا يقول بسائر والباطن من أتاه لله في كل سمنا قمتها عنه يوبا صبات ولسخامة وصفا وعباد لي بان كون المصطفى ليس لكل من قد بني الروصان كون نبي المتقى محمدي خير ورى مختار عند سمدي أشكره وخادني أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه الكريم والحميد وكل من لم يحوني ووكمه تعليم من لي لا يوجه الضرر على الذي بي كفاني الخرر جزاء من جلحني مثالي لي غاب ما خاب حني أمثالي الحمد لله بالانتهاء على ابن عبد الله سلفاي براءة المختار ليست أخفى إلا ولا من بنكال يخفى للمصطفى وجحت ما قد صرفا لخير نائب سوى وانصرفا قدمت باتلا بأخ فصاخ ولإليك زايد ملكت ربي مالكي كليتي حال الله كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قاله العقان الكسول براني له من شرك ومن كل نفاق وزعادات الدمير براني من عيب نصيب النبي صلى عليه بالسلام المذنبين سوى آخرين انقلبوا لعلي مباخ قاد لي ثوابا على الذي أورثني ثوابا على الذي طلب كوني القديم له ظلامات البرية الخديم لمن له كليتي هبادا حمدي ومن خالفني أبدا ملك الذي ليس له مباحي لي غاد ما غبني المباحي ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير غراني الجميل نعم النافع علاني المالك وهو الرافع ساق مكاري لمن قبلنا مدرتي من ليقود منا ملكني المالك والمليك والمالك الذي لا تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجسا أجر الوشي ما عنده لا ينفد وزل لي وما اختراح نفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تزليما كريم رمدا فرعني الخلب ونسيت يا باب وبمكارين خير شباب يزور خير العالمين خلمي علي تسليما مشين العالمين كليته في العلن وسر وحولي غار ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أراد طفيلا رفعت خدمتي إلى المعيشنات ولسوانا ساخ كل من فنات هو النبي والرسول والخليل وهو وإماء يكسر الخليل هو النبي والرسول والخليل وهو العبيب ويكسر الخليل للي مباخ لا يسال سمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلام الكريم سمدي على نبي وسيلتي محمدي على نبي وسيلتي محمدي أبا سلامي كريم سمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جوده أقتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفدر فوق زومي جئت بذا الخزير شاكرا لك به وخ خزن لي خطوا لك زلت خزيدتي دي سكورا ولم تظل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من سما سافعل وكل ما أردته منك الفعل آتيتني يا ربي من لدنك كرمك من فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروبه وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما غاد لي تقصير وتكريما أوديتني ما الخلب أنسى كل ما مدى من الضر ما تصل ما كفاني من مالوك ونعد بمال خير ساق كل من جعاد أكرمني بخل هو الله أحد ربي ولم يكن كله كفوا عاد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا بي كفاني الكمد وجعلني اكرم انفع الكرم وضرري بخير رد انصرما عسله كونتي خسيدا خارقة لعادة مفيده اليوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل الكلام من نال خارج الهروب بما يبغى صن من معروف من على خارس الهروب بما يبغى صن من معروف من على خارس الهروب وفقه بما يغوظن من معروف لنازم الغروب خلد الربا يا من كفى عوز الخرور والنبا ولي الرحمن يا رحيم يا حي ويا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك خديم صصرا مسلما على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 yàlla jaral na leen lu ne moo taxit ñu jaral nit ñi lu ne kon ki nga xamante ni moom lu ñu junj parce que yéen ko waxtaane tey ngir muy loo xamante ni commission bii di commission scientifique lëkkaloo ak commission culturelle dañ koo tënkoon waxtaane ko muy ay thèmes yoo xamante ni dañ ko war waxtaane ngir kenn ku ci nekk li war ci sa wàllu diin waaye li aju itam ci yoon bi nga xam ko ñu fas yéene tàmbali tey ngir barkeelu kenn ci ak dundam ngir sàkku ci barke ci li ñu bëgg muy dund maam Cerno Ibrahima radiyallahu taala anhu xanaa rek li ñuy jëkkee mooy di jéggalu bu baax a baax ki nga xamante ni moom la ñu fekkoon mu nekk suñu wet ndax nañu jité junjee sànq ne di sant képp ku ñu xam ak aw xaraf ci diine moom dañ ko seen jublu ndax bokku ñu moom mi ci Mouhamed nag ci nga xamanté ni ñom ñom dëgg pété ñom ñom moom moom moom ñi moo ñu jàngal téere xam-xam yu bari bokku na ci tasawul sixaat mo ñu ko jàngal bokku na ci jàngal sama taqribul aqsa ak yeneen tire yo xamante ni ñu ci si nam tamit suñu wàllu diine kon li tax ñu gëna tan manam tem ñu tan tay ngir waxtaanee ko di bi sallallahu alaihi wasallam sallam sax yonent yi ko jiitu kenn ku ci nek am jikko ju rafet jo xamni da ko ragne ko won lol ba tax suñu borom di ko digal ngir mu leen di fatali bu ñu xoolee Seydina Ibrahima dafa am lu mu ko muy dëggu ismaila tam dëggu ci lepp lo xamanteni ni lu mu digal Moussa ci wàllu sellal Seydina Ayyuba ci wàllu muñ moom moo tax alxuraan naan waskur fil kitaabi Ibrahima innahu kaana siddiqan waskur fil kitaabi Ismaila innahu kaana saadiqal waad waskur fil kitaabi Moussa innahu kaana muxlisan inna wajadnaahu saabiran nicmal abdu innahu awaaban boo xoolee itam saxaaba yi radiyallahu alayhim ñi nga xamante ni ñoom ñoo toppoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nekk am na melokaan woo xamante ni sa moroom daan na ko ci yow wax nañu Seydina Ababacar eggoon na ci ragal yàlla foo xamante ni mel na ni kuy wax xetu res bu ñu wàjj day xeeñ lu ko waral mooy ragal yàlla gi mu ragaloon yàlla dem ba mel ni lu lakk res bi boo ñëwee si Seydina Omar fit gi ak njàmbaar gi ak dëggu gi ragal yàlla yi eggoon na ci bu tàbbee ci ab mbedd sax iblis day daw bu jaar ci mbedd boobu boo xoolee Seydina Ousmane tabe da ko féetewoo ba tax na bëri na bëriyaana xare yu bari yoo xam ne bañ ko taxawalee moom moo financé xare yooyu ngir tabe ak si alalam Seydina Aliyun moom tam wàllu xam-xam foofu la féete moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ana madinatul ulum wa aliyun baabuhu moom bu nekkee dëkku xam-xam Seydina Ali moom mooy buntu ba ca jëm soo ñëwee itam ci sunu jàmbaar ji nga xamante ni moom lañu ñu yaakaar te amuñu ku dul moom muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu kenn ku ci ne tam ñu ko dokkoon ñu tàmbale si sunu maam Cheikh Ibrahima Fall wallu Pastef moom daan nañ ko roy ci moom maanaam Cheikh Massamba wàllu tabe Cheikh Mouhamadul Amin Gaye jëm mooy wàllu toroxlu maam Cerno nag lépp lu jëm ci wàllu sariya ak xaqiqa Serigne Touba jëkkee da duy ba mu fees dell muy jëmm joo xamante ni pire produit bu Serigne Touba defar teg ko ngir muriti mën a roy ci moom ci wàllu xam-xam wàllu ragal yàlla ak sax si jaamu yàlla sax si istiqaama olof yi nag dañuy wax ni baaxu mbokk dana waral fu sa jëf ju baax mënta yegg ñu àggale la fa boo góorgóorlu wallazina amanu واتبعتهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما علمناهم من عمل من شيء مام تيرنا نك سونو بوروم تانال نكو نياري اسكان يو گنا راني تي ريوبي موي اسكانو مباكه موم مام محرم اك اسكانو كوكي مام محرم مي مامام تي تنك رك buñu topp ay mamam day gudd way ki gëna siiw ci ay mamam muy alhaji cheikh mbake mi nga xamanteni mom mo baye ko won moom moy mamam mu mamam ci ibrahim ci walu wajurum bu jigéen tam ku ñu wax Serigne Maxtaar Ndumbe Diop mi sancoon kokki di mamam motax ñu ne askanu Mbàkke moom mam maam ak askanu kokki mamaram ak euh, Serigne Maxtaar Ndumbe dañoo bokkon daara lañ doon jangé ki lañ doon jangal moy mom la wax Serigne Massamba cham bi nga xamanteni mam maram maaram jàng na ba ab jangam mat mu wara yewé ko mam Massamba cham dafa dajalé dongo yépp xamalel ne len pende be we na mbàkke loolu barke ba toppi na mam maram lu ko waral moy diru la mam maram nek ci dara ji lepp lu jëm ci dunduk mam ma Masamba cham ak lu jëm ci walu keur gi lepp da koo sasoo woon tarbiyo ko bu baakha baax moo tax maam Masamba cham waxoon lol bi mu waxe lol itam maam lu mu dafa ne kon man dina ko dan rek fu mu tek tànk ma tek sama tànk bu ñu doon genné ñi nga xamanteni ci askanu Mbàkke sotowuñu ci mam Maxtaar dumbe du bari ba ci Serigne Mor Moustapha miy taawu Serigne Touba dama jël gis dama jëlale sax ay rakki Serigne Touba waaye njabootam ñu si ëpp ñu ngi sosoo si askan boobu muy askan ma Maxtaan Ndumbe Jóob maam Cerno mi ngi gane àddina ci ama sharfajin ci yoor yooru alxamis ci fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu ci atum 1862 ci dëkk bu ñu wax Poroxaan waaye ñi ngi ko joxe aw turum ci dëkk bu ñu wax kunda li waral loolu mooy bi nga xamante ni maam Cerno Birahim gane na àddina rek dafa tombeeg xare bi ñu wax xare Paoskoto xare koto ci histoire yaakaar naa ñu bari ñi nga xamante ni ñi ngi jàng xam nañ ko muy xare woo xamante ci ci moom moom kii moo ko woote woon euh, ma euh, mabba jaxu yaakaar naa sax si lañ ko fàtt bu mu juumul mooy xare koto boobu noonu bi nga xamante ni xare bi tàmbali na rek nga xamante ni fetal yeeg yëpp euh, xaw a yëngu Mamor Anta Sali war a tuxoo Poroxaan ngir sécurité génn Poroxaan dem Ndiabagouda wax na ni ki nga xam ni gan gi muy maam Thierno Birahim bi mu ganee rek soxna Fatou Issa Diop da ko def ci lu ñuul ab leket def ci ay ay muur ko ci aw ay ay ay ay ay laxasaay yannu ko ànd ak Mamor Anta Sali ànd ak njabootam ñu génn Poroxaan dem Paoskoto sëriñ Moussa Ka nee na yow ma alastu la ko bamba tànnoon murit ya bañ laa wax bàllee la génnoon moo njëkk moom la ñu ndab la mu bokk ak bamba cheikh yépp dañ see tànk naan ba nit ba moo njëkk sukk mu joojug sa baatin kun fa yakun moo ko dogal moo leen gën ngëneeru zahir yam bokk ak bamba ci wàllu maam moo tax mu àttan yan wa waajuram bu góor mi ngi tudd maam Moor Anta Sali moom maam Balla Aysa mom maam mahram waajuram bu jigen mi ngi turu Sanfa Isa Diop mom muhammadul Mokhtar Isa mom Mouhamadou Fakka Diop. Ahmadou Soxna buso mi nga xamanteni mom moy sen mam Ahmadou Soxna buso di mam mahram Ahmadou Soxna buso mam mojur mam astawalo mam astawalo mojur Soxna Jaara Soxna Jaara mi waajuram bu teddi Ahmadou Soxna buso mom itam mojur mam Balla mojur mam afsa Absa mam Assa Mbacke moo jur son Faati job mi wajuru mam Cerno Ibrahim kon mam Cerno Ibrahim moom ku tedd gi daño bok ci walu wajur bu gor waye daño bok ci walu wajur bu jigen ndax sen ñaari wajuri sen ñaari yaay yoy ñom ñoo bokk Ahmadu Soxna so bi nga xamanteni tam mam Cerno Ibrahim gane na aduna bokku na ci li gëna siiw ci xew-xew ndax wax nañ ne jamono jojo dafa fekkon ku tedd Cheikh Ahmadou Bamba walu xam-xam ñor ko lool ak laxas ba mu bëggoon genn ngir dem lu melni gannar wala dekk yu ko mel ngir sakku ji xam-xam waye Mamor Anta Sali doo ko isu ne ko soxna fa Issa Diop ki mu anda de def ko sa li saxaar bu gane adina di góor bul dem fenn li ngay wut lepp duñ ko am bu gane adina di jigen nak mën da genn moo tax bi maam war bi maam Cerno Birahim ganee àddina bay def lu ñuy woowee lu ñuy wax tàkku bi ñu naan gan gi di tàkku mooy loolu loolu xale di def mooy bu ganee àddina bu bu jooyul sax nga gis médecin yi di ko fëgg sage-femme yi di ko fëgg ngir ngir mu jooy moom lañ moom la olof di wax tàkku bi ku tedd gi déggee gan gi di tàkku rek dafa daal di bàyyi lépp lu mu doon def te wax nañ ni boobu mi ngi ko fekk mu ngi jàng alxuraan ba tollu ci aaya bi sunu borom di wax ak Seydina Muusa dinaan ko dinaa la sa say sarak wala sama aaroona ngir mu jàppalal si mission boobu moo waral ñuy faral di wax naan maam Cerno Ibrahima naan bu Bamba doon Moussa nga def Haaruna dafa taxaw taxawaay boobu noonu loolu xam naa dina si ñëw ci kanam insha allahu rabbi ci waxtaan yi ñu jëm waaye bi mu déggee tàkkub rek moom ku tedd ki dafa bàyyi li mu doon def lépp gaawantu mel ni ku daw jëm ci néeg bi mu gane àddina wax nañ ni dafa mel ni ku dajeeg Maam Mor si si buntu néeg bi ba ñu ne ko góor la dafa daal di bind téere boo xamante ni lim ci tënk moom la ñu wax sabaatul munjiyaat moom la moom la ci tënk sëriñ bi wax na ni lu lu waral loolu dafa tënk ciru borom daaru ba nga xamante ni nee na da ko gàtt ci jaamu yàlla ba nga xam ne bu bëggoon na def leneen lu dul jaamu yàlla sax du ko mën loolu tam dafa am lu mu doon waajal ci moom la ma doon waajal ci moom incha allah dina si ñëw tamit incha allah rabbi ci kanam. at bi nga xamanteni ni la mam cierno biraam gane adina dañ wax ni at wu ràññeeku la ndax serigne Moussa Ka neena na la cheikh bamba mag ma faatu mam balla isa at ma kon at mom at bu metti lo ndax cheikh bamba mag ma ñuy wax mom moy cheikh ahmadou bamba sall mi mam bo ant sall tuddé ku tedd gi ndax dafa bokkon tam ci ñi nga xamanteni ni war anta dafa am lu mu jëflante ak ñom ci walu xam-xam mu wekk ba tuddé ko serigne Touba muy mam muy cheikh bamba sall bis ba mu gannee àddina daal di tàkku la bamba xamni amna la mu doon sakku fekkon na cheikh bamba di ñaan bur yalla jambar ju askano ci mbacke balla bis bis bis ba mu ba takku ser batam ba cheikh bamba daw jëkënte ko bayamba. ba bayam ba kéro la mam mor antanan cheikh bamba sa ga nanguna nangu ki yor yan ba xamna ni soy dono yi rasulillahi muy sama ali ma omar billahi ba gane aduna àdduna na Cheikh Bamba di jàng alquran ni ngi waxe sank sànq ba egg suuratul xasas toll ci wa axi aaroona huwa afaw minni lisanan fa ma'i ridan yusaddiqni saddix ni ila axiril aaya xam naa ñu tuub di jéggalu rek ñu yamale foofu ci jamiltu ya jamilu aama kasasi maa qad jalal jamilu aama jaysasi kuliyati jamiltuha min daksasi bi sukrima min jaysasi li jaksasi qad kutta li maa qad rumtu ala aama daksasi كما أهيب رب عام أيسسي جاورني الجميل عام جمسسي إلى جنانه بغير مدسي رفعت ما كتبتها من أسسي لمسسي والأجر جافي في بمسسي رام رسول الله من إلهي كون قديمه وعبد الله درجتي كوني عبد الله قديما ji yow mi defoon xaatimul anbiyaa'i yaa delsi def ko muy xaatimul awliyaa'i ka yéen woon muhammadul makiyu moo delsi di ahmadul makiyu kii moo defar xureshi ak adnaan kii moo defar biidaan ak soodaan kii moo defar taybata booleek makka kii moo defar Tuuba boole waa Mbàkke kii moo rañaane Makka jëm Madina kii moo rañaane jeewal jëm ci diine kii moo waroon alburaax jëm asama kii moo waroon noon ya gaañi di law kii moo jihaar noon ya rey noon ya kii moo jihaar noon ya te faatul bakkan kii moo rey noon ba abu jahal ni badr kii moo tuubal noon ya te roj boccul gobar yëg sëriñ bi dox ci sëriñ bi wax ci sëriñ bi mbir maa ngi gaay sopp sëriñ bi topp sëriñ bi ànd ak sëriñ bi gëstu sëriñ bi wax ci sëriñ bi jëf ci sëriñ bi lii leer na gaay amul morom mom bu len ko woutal mom yalla moko mbiram mom mbir maa ngi nun gaa yalla yàlla <clears throat> ni moom la yonen ne mom la man mani mom la te mom la gañu kon mbok yi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim comme ni ma ko waxee ci njëlbeen wa radiyallahu an cheikhina wa wasilatina wa qudwatina cheikhuna wa habibina ahmadul mbaki wa radiyallahu an xulafaihi wa an ashyaaxihi wa an muridihi radiyallahu taala anhum ajmain mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jiite ci nuyoo bi kii nga xamante ne moo fi nekkul Cheikhul Khadim muy sunu sëriñ suñu royukaay Muhammadul Muntaxa al Bashir ayyadahu llaahu wa rafaahu di ci tekk itamit ci nga xamante ne mooy sunu bunt ci ci yoonu Cheikhul Xadim mooy Muhammadinil Amin Mbakke radiyallahu anhu wa arbaahu teg ci doomam ja Muhammadinil Murtada Mbakke ak ay rakkam ak ay bokkam di nuyu mbooloo mi nga xamante ne ñoo fi toog di jiital ci nuyoo bi itamit ki yàlla def ci bopp mbooloo mi muy Cheikh Issa Sané ak sëriñ Mbay Ñing ak sëriñ Moussa ak euh, sëriñ Ali ak sëriñ Xaadim lim ñooñu rek yaakaar naa dina doy muy yóbbaale ñëpp ci soxna yi ñu ciy lim soxna Rahmatullahi ñaan muy yóbbaale jigéen ñëpp di sant bu baax a baax ci jotaay bi nga xamante ne yàlla may na tey ñu fekkee ko muy jotaay boo xamante ne jotaay ëpp ko solo ndax li tax mooy Sëriñ Tuuba bu ñuy waxtaan ci moom diggante bi nga xamante ne moom ngay waxtaan ci moom loolu bokkul sa dund kon kooku jar naa waxtaane kon dafa mel ni kon képp ku bëgg am fanwu gudd ak wér na ngay waxtaane cheikhul xadim ndax waxtaane ko mooy tax yàlla ñoddi saw fan wéral say sër ndax koo xamante ne léppam da ko jël jox ko yàlla jox ko yent bi ba soxlawul dara yaakaar ne kooku képp kuy waxtaan ak kuy waxtaan ci moom sa bopp ngay waxtaane ndax dafa mel ni bal boo jël dóor ko ci miir bi si yow rek lay dellusiwaat kon eh, mbooloo mi daal maa ngi leen di sant di gërëm ñépp ci kaw ba ci suuf damay wax sax mbooloom sëñ Tuubaa moom ñépp a ngi ne ci kaw amul ko ne ci suuf mën nañu wax tuutànke nag ak kilifa gi waaye ñépp kon ñu ngi nii ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp bëgg a dugg tuuti ci waxtaan wi nga xamante ne Seydina Ali doon na ko wax ci jëmm ju tedd muy Cheikh Ibrahim Mbacké ndaamal daaru nga xamante ne dafa susu rëkk ci Cheikhul Xadim mag ko sëkk ndaw ba ba muy dem ca géej ga ak njabootam kenn dayu ko ci woon lu dul maam Thierno Birahim kon loolu firnde la di wonekat cheikhul xadim fi mu teg rakam ja ndax dëgg la mbokkam la waa it lam koy doyee ko mat na ko ndax su ko fa su ko matuloon tamit da koy jox ki ko mat waaye mat na ko sëkk ba tax ba mu delsee bëgg na ci maam na ba wax ci moom ay wax yu rëy rëy kon loolu day waree rek sujet bi nga xamante ne moom la Cheikh sa Seck tànn di ko waxtaane muy jëmm joo xamante ne ku ne war na koo xam ndax jëmm la joo xamante ne dafa liggéey yàlla liggéeyal yent bi liggéeyal Cheikhul Xadim liggéey yoonu murit yoonu murit liggéey boo xamante ne kuy gëmm sax xam nga ne liggéey na Cheikhul Xadim waaye nag daf euh, li ñuy wax rek dafa bokk ak Cheikhul Xadim ci jaari wàll yëpp ci wàllu ci wàllu wajuru góor ak wajuru jigéen kon noonu rek lay mën a mel kon mbokk yi xam naa duma ma guddal sax ndax xaw naa guddee tamit programme bi bari na waaye dañ doon barkeelu rek ci bërëb bu mel nii ndax jotaay bu mel nii moom fekkee ko yombul bu la ko yàlla fekkee la nag barkeelu ci da ci am solo kon ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp te ñaanu yàlla cheikh Mouhamadul Mourtaga al Bachir yàlla yàggal ko fi dëgëral ko ba naaw li nga xamante ne moom la naan la cheikhul Qadim yàlla yeggali ko mu àggal ko ci jàmm te lépp ñu fekkee ko wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi sax li sadri wa yassir li amri waxloo uqdata min lisaani yafaw xawli asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ñuy nuyu mbooleem ku toog ci jotaay bi rek ku nekk ci turam ak santam te di leen ziyaar yéen ñëpp te di rafetlu toogaay bi waa sëñ Aly Ndiaye ñu ñëwoon bu tontu la si sunnaay jàpp sunnaay jàpp nag juróom-ñaar la bi si jëkk bi si njëkk mooy raxas say loxo ba si say tikki jara tikki jara na nag pour ñi ko xamul mooy comme ñun soxna yi rek fi ñuy faral di takk suñu jara yi ñaareel bi moo di galaxndiku ñetteel bi saraxndiku maanaam dugal ndox mi say bakkan ñeenteel bi moo di fiiru maanaam mooy nga génnee ndox mi juróomeel bi mooy nga dellaa delloo massa bopp bi bopp nag ñaar la bi ngay dem ak bi ngay ñëw bi ngay dem nag bu farata la waaye bi ngay ñëw ba say jëbi boobu mooy sunna juróom benneel bi mooy nga beesalaat ndox mi maanaam nga tooyalaat say loxo juróom ñaareel bi mooy nga masaa say nopp juróom ñaari sunna yooyu moo nekkoon sunnay jàpp allamani rahmanu fi sakina bi annani alxadimu sil madina براني لا لدى القناكري من كل جانب إلى المناكري أصابني الله في كرمبسا خبل المبارس وعاني عبسا داني يا ريم عند دومي له بما منعني تصومي يا سرني منا لدل دبروني ما غادني مع بان كل ولي لغاد أغلى البدر الوسودا من شعزع وزيا وعزودا يخون ردني حيث لكون لا تفسيرا لا اله الا الله يقودني حيث لكون لا تفسيرا لا اله الا الله ثاني خير الله في ما ينبغي معزى قلبي وأهل جنبا لله قد وصلت عند قلبا وزنني عماي جروب الوا كتابتي قبل لدى البغور طفت عياتي قيال المدعور هلمني حليم النساخرات من ما يسا وكفني كفرا لم ينخني خند بخور مغرقات داخل لأمر أو داولي فزعات يا سرني جميل عند مغرقات ما زنني عن جالب لمسركات خبات من لقانا خند وسخات خدت لك الكلي رداء وزاجعات مدانيا أنواري دسلما وسلمين من كفني شدمات سعادتي هند إلهي إلهي لزغرت خد سوي ملاهي لم ينخني خد سوي أموري جواري دا باهن له أمري تغارني لا ولد للكتاب من سعوة ومن كل ختام تغارني لا ولد للكتاب من سعوة ومن كل ختام أكرمني خد سوي إسراكي ما حدني إليه إدراكي ناجيته بيا نزير يا ولي كفيتني إبليس عند جولي ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جولي سي بامبا يا جروي يا جرتك يا سيخ بامبا يا جروي يا جرتك يا سيخ بامبا يا جام يلا يا ولي يلا doyloo nga yàlla yow Seexu Bamba subhaana rabbika rabbi sati amma salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke Ngakere jaayum kër wala terrain ci mim réew fi wala location Moham xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit na mu gëna gaawé tubar fakal mettre en rapport ak suñu ay clientèle ñi nga xamante sur le soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko défé ñu ñëw sa biir kër dal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy waar dal di koy posté sur suñu page bi social shopping immobilier Pourquoi de faits, Yen, 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 Action social shopping immobilier Diaker, n'est-ce